mam nga ku caf merbangi meer ngi lu neex la di caaf te leer na wa senegal la si yama mam nga ku caf merbangi meer ngi lu neex la di caaf te leer na wa senegal la si yama ku am fi gan waxtu wo ngon nel sa ndaw ne ne siw ca gàkku jañ lu ko moy da khultuna moy mooy yéen caaf gàkku ci doy set gàkku moo ci doy la boy ñibina jaawale gerteem da koy tànn doo gis gàkku jaañ ku mu jaay mooy ceeputuy tifli naa cam-cam demal njaayeen li tax ba njaayeen ne rankum def ka tiiw bile meer caa fantuut gàkku jaañ doo seeti waa njóobeen maam gàkku yàlla na ko buur bi sàmm may ko wérit ba yee ko buur bi sàmm may ko wérit waa Mbàkke fu ñu fekk caafam ngeen ba yee ca lu wóor ndawe ni koo gis ma ngay saapar di saapari naa sanjang di sanjangi fuñ gis gàkku xayma lu wóor ndaweni koo seen ma ngay saapar di saapari naa sanjang di sanjangi fuñ gis gàkku xayma lu wóor alhamdulillahi rabbil alamin